mooy lan mooy maa ngi ñaan ñun taalibe yëpp ñu gën a joxaat war ma ñu sant si loolu su ma ko waxee maa ngi ci jublu programme yi xew mooy xadara yi walla gàmm yi wala conférence yi da ngay yëkkati sa kilifa ba mu ñëw toog nga jël eh, benn politicien wala benn borom alal jox ko kàddu muy wax di wax di wax di wax ba temps bi jeex kilifa gaa ngi toog eh, te priorité kàddu moo doon kilifa gi ñëw sant si te dañu jàng ci fiqu tariqa bi ñu ne bokk na ci su adab bokk na ci liy dagg taalibe ci tariixa bi mooy bëril kàddu ci sa kanamu sëriñ waaw yow bëril kàddu ci sa kanamu sëriñ suñ la ko waxee rawatina nag publiquement xamoo sa kilifa mu ngi jànkuwanteeg feebar bu mu la mënul wax xamoo mu ngi nekk ci xaal boo xam ne toogaay bu yàgg mënu ko xamoo yan situation la nekk ndax ñoom du wax ay sang lañu li ñuy woyaalee ci ay jafe-jafe te taalibe bu nu koo xam mu ëpp li taalibe bu nu xam kon dañuy ñaan ci kanamu sëriñ Abdoul Aziz Ahmad laa koy waxee ñii woo kilifa yi ba ñëw lenn mooy mën a nekk nañu njëkk a jox kilifa yi ñuy wax comme ça bu ñu taayee wala bu leen seen xaal may ñu continuer ñu mën a rocc ko dem waaye woo sa kilifa ba mu ñëw nga jël borom alal wala politicien bàyyi ko muy wax di wax ba géex loolu vraiment du respect ci ñun taalibe yi ci suñu kilifa yi te nag am nañu lu mat sëkk lay tax ñu ñàkk ci jëriñu nag mooy ñu ñàkk ko fonk rek waaw kon kon sa kilifa woo ko ba mu ñëw teg ko ci kaw bul am complexe lu nitu nguur rëy rëy rëy jàppee ko ne ko sama kilifa la gën lu nit bëri bëri xaalis jàppee ko ne ko sama kilifa la gën soo ko defee noonu rek da jël ñu ci moom waaye kenn du jël sa kilifa yemale kook ñëpp kon daal loolu maa ngi jégalu ku tuuti laa ci wax ko nag waaye maa maa ngi ko ñaan ndax toog naa ci kanamu seex Seydil Hadji Malick ndax sëtam laa toogal moo tax maa ngi ñaan loolu ndax ci programme yi laa dëkk guddeeg bëccëg maa ngi ci programme yi waaye li ñu gis ah loolu war nañ ko corriger te du heure lu sëriñ si waaye ñun taalibe yi la suñuy càgganteef la yàlla ñu yàlla dimbale yàlla may nu nu nu bàyyi xel ci loolu bu leen jàpp ne wilaan moo koy ñaan bu leen jàpp ne wilaan moo koy wax waaye jàppale ne rek taalibi bi gën a tuuti ci taalibi yi moo koy wax waaye nag mu ngi ko waxee ci kanamu Cheikh Seydil Hadj Malick ndax maa ngi toog ak surtout Cheikh Seydil Hadj Malick kon duñu bàyyi sëriñ bi rek mu joxe kàddoom yu mujj tabaarakallaahu eh, li nga wax am na solo dañu wax ni xam li nga am baax na wante xam nañ koy téewee itam baax na te suñu kilifa yi li ma ko waxee ñoom nañu am dañ leen war di yaxanal fa tabarakallahu suñu toogee ñu fexe ba di wàññi kàddu yi ba ñoom itam ñu mën a délivrer message bi nga xam ne moom nañu bëgg a délivrer te képp koo xam ne ñëw nga fa itam si beneen nombre tànk ñu xam ni e, suñu kilifa yi fi leen teg teguñu leen fa ñoom fa tabarakallahu moo tax kàddu yi nga lancé am na solo ñu ngi santaat bu baax